بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci àjjuma ji nga xam ne mooy fukkeelu fan ak juróom benn ci li nga xam ne nii mooy weeru Sha'ban ci atum 1441 di tombeeg fukkeelu fan ci weeru avril ci 2020 ñu ñëw tey ngiree nag teeru gan gu màgg bu suñu borom yàlla subhanahu wa taala di dalal ci ñun ci at mu nekk gan googu di li nga xam ne mooy weeru koor suñ digganteeg moom li nga xam ne moo ci des matatul weer bal matatul sax génn wàllu weer loolu nag ñu war koo teeroo la nga xam ne mooy yàkkamti mu yegg si njëriñ ngeen li ca nekk war koo teeroo lii di tub gu sell waaye it mu bokk la gën a màgg lañ koy teeroo mooy jàng atte ya nga xam ni suñu borom yàlla bëgg na ñu dundee ko weeru koor ndax kat mbokk julit suñu borom yàlla du ne jëf rek lay fay waaye jëf bala ko yàlla fay fokk day ëmb ñaari mbir xaalisan sawaaba fokk day tege ci yéene bu sell mooy yàlla rekk a tax ngay def ñaareel ba it danga koy dëppaleeg na ko yàlla subhaanahu wa taala gërëmi ka ko jàngale woon muy ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk koor mi ngi tudd ci arab la nga xam ne mooy siyaam siyaam moom mooy ak jàpp ca képp koo xam ne danga jàpp dañ naan moom kat daa woor amma nag bu dee suñu waxtaan bi ñi ngi ci jublu koor goo xam ni dangay xëy jàpp fi fajar jote ba ba fa jant ba di sowe nga jàpp ci lépp loo xam ne day dog koor la ci jiitu mooy lekk ak naan ak sëy comme niñ koy nara waxe ci kanam insha allah koor googu wax naa la sànq dañ koo war a yàkkamti ab sénégalais bu waajee bay dem makka yàkkamti ne dem makka lool waaye naka noonu it lañu war a yàkkamti dugg ci weeru koor lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ni nee nañu suñu borom nee na nee na yàlla jàll wa ala day wax na ni doomu aadama lépp lum jëf rekk moom la ñeel bam des koor koor moom mën la ñeel moo tax yowmal qiyaama yàlla dana sant malaaka yi ñu fay yoolu julli yoolu aj yoolu jihaad yoolu zakaat amma koor moom yàlla moo koy fayal boppam ay jaamam loolee mbokk nekk ngëneel bu rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it moo tax mu dollil ñu ca ay waay ngalla waay kenn ci yéen bu wooree bu mu wax wax ju ñaaw bu mu nekk di jëf-jëf ju ñaaw bu mu nekk di yuuxoo ko xuloo même bu dee am na ku ko indil histoire ne na ko ah man kat dama woor bu dellu siwaatee man kat dama woor mu ne na ngeen xam ne day maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom la nga xam mooy xet gay génne ci ku woor bu demee ba ngoon ba xiif yowmal qiyaama yàlla dana ko soppi xet goo xam ni mooy dàq parfum bi gën a neex ci kaw suuf mooy misk mu ne aju woor ji day dana am ñaari kontaante fi mu woore ba kooram jeex dana kontaan waaye bis buy daje ak boroomam dana kontaan ca kooram googe lii mbokk da ngay gis ni ab ngëneel bu rëy la boo xamee ni nii ak jullit heure boo xamee ni nii mi ngi séentu weeru koor dana yàkkamte lool yàlla yeggale ko ca ba bokk na lu siiw lu ñuy nettali ci borom xam-xam yu jëkk ya suñ masaan nekk di siintu weeru koor seen diggante def juróom benn weer dañuy ñaan yàlla ey yàlla yàlla nañ ñu boole ci ñi fekke weeru koor su leen yàlla wërsëgalee ñu woor weeru koor ba mu jeex ñu commencé nag di ñaan yàlla yàlla yàlla nag ñu ko nangul ba juróom benn weer yi ca tegu jeex su ko defee at mi yépp day séddilikoo ci yàlla fekkaloo ñu weeru koor yàlla nangul ñu la nga xam ne nii moom mooy weeru koor mbokk bokk na ci ngëneel yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba tey mooy yowmal qiyaama bi ñu jëm suñu borom danañu fa àtte su dee yaa ngi xam liy xew ci tribunal yi képp ku def jéeya da nga uti ay avocat da nga seeti intervention amma bu dee àllaaxira bu la suñu borom dee atte amul kenn koo xam ne dina ñëw taxaw sa wet di la layal wala di la conseiller amul foofu yowmal qiyaama waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla bu taxawee ab jaamam di ko atte lii di weeru koor dana jóg taxaw alquran jëm àndaloon jóg taxaw weeru koor naan ay yàlla baal ko man de maa taxoon mu bàyyi lekkam ak naanam man de maa taxoon mu bàyyi bànneexu sëyam ca bëccëg ba alxuraan naan yàlla baal ko man de la jógoon di naafi la ca weeru koor loole suñu yonente alayhi salaatu wasalaam ne suñu boroom daal di koy baal daal di koy tabbal aljanna yal na yàlla boole ñu ca ñooñi mbokk da ngay gis koor waxuma farataga waaye xatta la nga xam ne nii moom mooy ay naafila kenn xamul la ca nekk ci ay tuyaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ne yowmal qiyaama day aljanna am na juróom-ñetti bunt bunt bu ci nekk am na ñu yeyoo dugge fa am na nag bunt bu ñuy tudde rayyaan kenn du fa dugg lu dul ñi doon woor ci kaw suuf su malaaka yi woo leen ba ñu jeex ñu tëj ko ku bokkul woon ca ñu woor yow doo dugg ci bunt boobee lii lépp mbokk ay ngëneel yu ndaw la yu ñu leen tënkal ci xéewal gu réy gi nga xam ne ñoo ngi koy séentu di ñaan yàlla yal na yàlla subhanahu wa taala yeggale ñu ca mbokk julit koor mi ngi noonu léppam di yiw waaye nag xamal ni la nga xam ne moom la ñuy sént moom mooy li ñuy tuddee chehru ramadan mooy weeru koor lan mooy weeru koor mbokk weeru koor mooy la nga xamee ni nii suñu boroom saxal na ko cib téeréem sunna yonent bi saxal ko ñaari boroom xam-xam wuute wuñ ci ne farata la ponk la ci ponk diine lislaam loolu suñu borom nee na yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun borom bi ne ay yéen jullit ñi dama farataal ci yéen ngeen woor ni ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu woon ngiree ngeen am ak ragal yàlla suñu borom yàlla yit teg ca ne chahru ramadan allazi unzila fihi alquran weeru koor ca la ñu wàcce alquran hudan linnaas mu nekk njub ñeel nit ñi wa bayinaati min alhuda walfurqaan mu nekk loo xam ne day leeral di teqale la nga xam ne ni mooy leeral ak njub di teqale dëgg ak fen fa man shahida minkum shahra fal yasum képp koo xam ne nii fekke ne koor ga ngalla way na ko woor mbokk loolu ñëw na ci téere borom bi soo delloo ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne buniyal islaamu ala xams islaam ñoo ngi ko tabax ci juróomi piye shahaadatu an laa ilaha illa allah piye bu jëkk ba mooy seede laa ilaha illa allah yàlla dong yeyoo ñu koy jaam wa anna muhammadan rasulullah te it maa ngi seede muhammad yonent yàlla la ñaareel ba mooy wa iqaami salaa taxawal la nga xam ne nii moom mooy julli wa itaa zaka taxawal zakat muy ñetteel ba wa siyaamu ramadan woor weeru koor muy ñeenteel ba wa xajjil bayit nga daal di aj nag la nga xam ne moom mooy ca makka loole mooy la nga xam ne nii mooy juróom ba mbokk jullit dañuy gis ne kon loolu moom mooy koor képp koo xam ne nii dafa doon ku weddi ne koor waru ko ku mel noonu bokkatul ci lislaam kooku mel moom bokkatul ci lislaam moo ki ne julli warul ñoo yem bokkatul ci lislaam ca mooy weddi ne ponk ca ponk lislaam ya suñu borom yàlla bi mu koy farataal booba yonent bi gàddaay ñi dem ca madina ca ñaareelu at ma ca la ko suñu borom yàlla doog a farataal looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ngay gis ne ci koor ramadan juróom-ñeenti we juróom-ñeenti weer la ca woor ci dundam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam naka noonu it mbokk julit la ab julit war a xamee ni ki nga xam ni dafa dog benn bis ci weeru koor doonte ne ni moom mi ngi woor sax waaye dog benn bis boo xam ne moo ko tey ku mel noonu wuur du ko mën a fay ila yomi diin la nga xam ne moo ko war mooy tuub tuub bu sell na am dana woor ab bis waaye bis boobu mu woor fayu ko bu wooroon téeméer bi sax fayu ko am na ci yeneen façon dog nag yoo xamee ne nii dana laaj ay détail insha allah dañ ñëw ca loole mbokk koor dañuy gis ne ñëwul ngir jox ñu yoolu ko woor waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal ne xeet bi ci ne bu weeru koor teroo rekk yàlla day ubbi mboolem buntu aljanna ya tëj mboolem bunti sawara ya tënk shayaatiine yi yàqal doomu aadama loolu muy woñu ne tuyaaba day yomb lool ca pay ga bari lool bakkaar jafe ca it jàpp ga ca yàlla di jàpp ay jaamam néew lool suñu yonent alayhi salaam ne yàlla dëxëñ na ci benn guddi boo xam ne moo gën junni weer yoo taxawoon di ko jaamu yàlla koo xamee ñi ni daal perte na yool boobu kooku rek mooy ki nga xamee ni nii mooy ki perte dëgg mbokk weeru koor boobee gis nañu ni mboole mi boroom xam-xam dëppoo nañ ci ni heure bu ñu amee ñaari jullit yu maandu yu seede ni gis nañu weeru koor wareef la ci mboole mi jullit ñu daldi woor am na ca ñoo xam ne nii sax ca seen wax moo gën a dëgër nee nañ bu dee benn jullit bu maandu moo taxaw ni gis naa weer wi loolee dañoo war a woor ca loolu it ay tegtal yu bari am na ca su dee gisuñu weer wi weeru shaabaan bii ñuy dund muy baraxlu suñ demee ba mat fanweeri fan suñu xëyee ñépp ñoo war a jóg kon woor am na nag juuyoo gu rëy gu nekk ci borom xam-xam yi waaw bu dee réew sàngam moo ko gis ca beneen réew moom gisu ko ndax ñépp a war a woor loolu day mbokk jullit bu doonte ne ñun ñii di wax ak yéen lañ ca tànn dañoo tànn ne ñépp a war a woor waaye nag ay boroom xam-xam yu mag di boroomi mazahib yu mag ñoom gis nañu ne gox bu nekk war a woorandoo ca mooy kon masalan lu mel ne Sénégal la leen di tënk ci koor mooy li ñuy tuddee Afrique de l'Ouest gi ñu nekkee ñoom fu fi weer yi feeñe Mali Niger ba Soudan ba kasaw yu demee noonu fu weer yi feeñe dañoo war a woor danaa ci bàyyi xel rek ne àdduna nag dox na ba nit ñi créer leneen loo xam ne musul xew ca jamono yu jëkk ya mooy ñi nga xam ne dañ naan réew mi la ñuy xool buñ ko gisee ci biir réew mi woor buñ ko ci gisul duñu woor mbokk loolu daa dab lislaam su ko Arabie saoudite defee du yoon su ko Sénégal defee du yoon su ko Mali defee du yoon frontière yooyu yëpp bërki démboo njaay lañ ko fi rëdd Arabie saoudite googu am 1945 lañ fi rëdd ay frontière am loolee kon julit ñi la leen tënk de frontière artificielle yi nga xam ne tubaab yi biñ ñu séddoo ñoo ko dagg nam leen neexe ba tey jii mën ngaa gis ab julit ñu naa weer yu de feeñ ne waaw fu mu feeñ ñu ne Gàmbi ana Gàmbi Gàmbi mi ngi ci biir Sénégal waaye waaw ñun dal feeñul ci réew mi fukki région ñeent yépp feeñu fi mbokk loolu njuumte la boo xam ne ngalawaay yow mi may dégg bu mu la yóbbaale samay at néew na lool waaye yàgg na lool ñuy dokkoor fekk Mauritanie la ñuy wax fa la feeñ ñuy dokkoor fekk Mali wax la fa la feeñ taxaw naa di naafila ci fanweereelu guddi weeru koor imam bi ñu doon jiite rahimahullah inna leen rajoom ba mujj rajo Dakar ne ah waa Mauritanie nee nañ gis nañu weer wi ñu ne ah kon bu subaa mooy korité loolee mbokk yàggul su ko defee kon li xew tey bu mu la yóbbaale mi ngi noonu mbokk julit waaw weeru koor boobee gannaaw ba mu waree julit ñi ana kan lañuy wax ne yow kat xamal ne koor war na la boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ni koor balaa nekk farata ci nit day nekk ak julit ca mi ngi noonu lu tax ñu ne day nekk julit mooy yéeféer bi nga xam ne dafa tuub dugg ci lislaam tey koorug daaw kenn du ko wax na ko ko fay amma julit bi wóorul woon daaw moom dañ naan ko fayal kon ëwwalan day nekk julit day ànd ak xelam ab dof kenn wóorloowu ko day doonit ko majeur xale koor wóoru ko doonte ne ay woy juram war nañ koo tàmmal koor ba baa muy majeur mu mën a continuer ci loolu waaye koor ga moom waru ko bokk na it waa ji nga xam ni dafa feebar feebar bu biir koor moom waru ko gannaaw ba nag dana fay ki nga xam ne daa nekk ci tukki koor waru ko doonte ne nag dana fay gannaaw ba am na ci jigéen ñoo xam ni ñoom kooru dana leen war waaye xaram nañu woor mooy jigéen bi ànd ak règle xaram na ci muy woor jigéen bi nekk ci dërëti wasin xaram na ci muy woor loolee am na ca yeneen yuy ñëw su ko defee kon ki nga xamee ni nii ñooñu nga xam ne dañ leen koo wax ñooñee mooy ñi nga xam ne koor kat ñii daf leen a teggeeku ñii dafa war ci ñoom waaye may nañ leen ñu daal di woor ñu daal di bañ a woor waaye bu koor gi passé nag fokk dañuy fay comme ni ma la ko détaillé le ca ka nga xam ne nii moo am ngant bu ko te bu ko tax a dog mi ngi noonu su ko defee waajooju nga xam ni dañ koo waxoon ci feebaram ba mooy feebar bu ñu yaakaar dana wér amma koo xam ne médecin yi dañ koo condamné ne ko kat feebar bii la dal gisuñu ak wéram ca koor moom munloo ko ku mel noonu dañuy gis ne koor teggeeku na ko leneen lay tegu ci kawam mooy fidiya ca mooy mu leel la nga xam ne muy miskiin doonte ne ne mën na am ñu ñëwaat ci waaye la gën a digg doomu mooy bés bu ne nga sarxeel ko rek kilo ceeb loolee ba koor gi daal di paase doonte ne boo mënoon a am it miskin boo xam ne bés bu ne nga tibbal ko ndogu mu ndogu ci ba suur loole it da ngay gis ni dana la wàcc loolu ñuy wax ci ku feebar moom la ñuy wax ci màgget màgget mi nga xam ne dem na ba néew doole ku mel noonu koor waratu ko la ko war mooy mu daal di joxe la nga xamee ne ni mooy fidiya te mooy bés bu ne mu sarxeel ko la nga xam ne mooy culub ceeb comme na ma la ko waxee ca waajee nga xam ne nii moom dafa feebar mbokk mu des beneen cas boo xam ni temps yi liñ ciy jot ci téléphone kenn xamul nu mu toll mooy soxna si nga xam ni dafa ëmb wala soxna si nga xam ne day nàmpal loole lañ cay wax mbokk mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi day lañuy wax ca loolu dañu naan su dee ne ndaw si dafa ragal bakkanam loru ci bu wooree ku mel noonu day dog kooram heure boo xamee ni nii koor gi paase na yàlla may na ko wér mu fay ay bisam am ca ñoo xam ne dañ ne bu dee ne nag moom daa ragal doomam loru su boobaa dana boole ñaari mbir dana boole fay bisu koor gi boole ko joxe fidiya ca mooy cula ceeb boobu ma la wax donte ne am na ca ñoo xam ne dañu ne suñu boroom day nee na fa iddatun min ayaamin uxar nañ ki munta woor na jël yeneen bis ñu woor ko bu ko defee ñun lañ ca tànn day mooy waa soxna si nga xam ne daa ëmb ak soxna si nàmpal ca bu wóoree loru dañ ko boole ci ñi feebar su dee ne moom loolu dal na ko ci weeru koor na wut benn karneem di ci note koor gi day am naa ci fukki fan koor gi am naa ci ñaar fukki fan muy bor bu gàddu ci moom heure boo demee ba yàlla may ko tawfiq mu koy fay nank-nank ba mu jeex jarul mu cay dolli di sarxe lenn lii daal mooy la nga xam ne ñun moom lañ ca tànn ci ñetti waxi borom xam-xam ñii jàpp ne moom bu joxee fidye kese dana doy ñii jàpp ne daa war a fay koor gi ba pare joxe fidya am ñu jàpp ne daa war a fay kese ñun lañ ca tànn mooy ñi ne daa war a fay kese kon soxna si utal sa bloc-notes ngallaawaay koor gu la rëcc la la ci rëcc ci bis note ko. bu la yàlla mayee tawfiq nga koy fay nank nank nank nank bor la comme ni ngay yorale sa moroomu doomu aadama bor bor la boo yoral yàlla noo ko mën a fay rek noonu la yàlla bëggee ndax suñu borom nee na sax yéen jullit ñi nga xam ne da ngeen ñu leblente ki nga xam ne nii daa am jafe-jafe fa naziratun ila maysara xaar leen ba mu ak yombal dikkal ko loolu it la ñuy wax ca boru koor ya ca wàllu googee wallahu aalam maa ngi lay wax sànq ci lu aju ci aji tukki ji nañu xamee ne mbokk aji tukki may nañ ko mu dog waaye su ma nee wóorit loole da ngay gis bu ko neexee woor boroom xam-xam yi am nañ ixtilaaf lan moo gën bi nga xamee ne maa ngi tukki ma woor walla ma dog am ñu ne dog moo gën am ñu ne woor moo gën doonte ne la ca gën a digg doomu mooy ki nga xam ne tukki bi juralu ko benn coono ci weeru koor kooku mu woor mooy gën ka nga xamee ne nag dafa am coono ci tukkeem kookee mu dog mooy la gën mi ngi noonu loolu la ñuy wax ci wàllu googee loolu it la ñuy wax ci wàllu feebar bi waa ji feebar bu dee ne yëg ne na man kat feebar na d'accord waaye mën naa woor su wooree loolu mooy la gën ci moom lu dul koor ge yëgg ba nara doon loo xam ne nii bakkanam mën na caa des su boobaa moom day xaraam muy woor loolu it la ñuy wax xattaa ki dara dalul demoon nga ci benn xaal tool yalaam usine balaam place boo xam ne mar mu tar dal na la fa ba yaa ngi miir ak ximmi su boobaa dañ naan la dogal sa koor googe ba beneen gis nga ba beneen bis nga fay ko mi ngi noonu ci wàllu googe bokk na it mbokk jullit ci loo xam ne nii jullit dana ci war a bàyyi xel mooy lii di wéeru koor kenn du ko gàttandu ñu bari ci nit ñi biñ gisee ne kat sunnal nañu bu wéeru koor paase ñu gunge ko gunge ko ci juróom benni fan yooyu woor ci shawaal am na ñoo xam ne dañ jàpp ne noonu la nekkee jaamu yàlla teeru weeru koor ba bu weeru koor dee ñëw ñu daldi nekk di woor ay fan jiitu ko déedéet mbokk koor gu ñu yoonal foofu amul na am bu dee dangaa jublu woor ngir weeru shaaban bii day loole moom ngëneel yu rëy la weer wi ñu nekk moom loo ci gën a mën a bari la koor baril ko am na xadis bi wax ni buñ demee ba shaaban digg doomu bu leen woorati xadis boobee da ngay gis ne boroom xam-xam yu bari dañ koo boole ci ñu wérul waaye même bu doon te ni dañoo jàpp ne wér na it du ca bokk ka nga xam ne moom aada woo woon na di woor altine ak alxames wala aada woo woon na di woor siyaamu daawud loolee yépp da ngay gis ne bokkul ca wàllu googee am na ci it loo xam ne dañ ko war a bàyyi xel lenn ci nit ñi dañ naan suba la ñi ñi ngi séenti weer wi tey ah amul problème mën naa yéene rek xëy suba woor su xëyee suba laajte su ñee weeri feeñ bi mu continuer su ñee weeri feeñul mu arrêté mbokk déedéet weeru koor kenn du ko woor ci chaque yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ñu woor bis bu ñuy sikki sàkka bala ngaa débuté weeru koor fokk da ngay dem ba mu wóor na la ne koor gi dugg na su ko defee kon mbokk jullit yi incha allah ci li ñuy tàggatoo ak yéen mooy ñu ñaaxaat soxna yi ñu góor góorlu fay boru koor yàlla subhanahu wa taala yombal nañu suñu diine ji lool bu weeru koor passé may na la fukki weer ak benn yoo xam ne fu la fi neex fay waaye nañu xam ne soo demoon tey jii ba sa digganteeg weeru koor gi di ñëw dafa li ci des masalan tey jii lañu wax ni mooy fukk ak juróom benn kon suñu diggante ak koor gi fukki fan ak ñett moo ci wóor fukki fan ak ñett yooyu bu doon say bor la ngal la waaye bul dogati lu dul ci ngant fu wooral fukki fan ak ñett yépp ki nga xam ne dafa am bor ci koor gi paase fayu ko ba beneen koor fekk ko fa mu war a fay gannaaw koor googee la ëpp ci boroom xam-xam yi day dañu ne su dee ngant moo tax mooy diggante bi kat amu fi woon occasion woor ku mel noonu moom day woor rek dara waru ko mais bu doon amoon na occasion woor amul benn ngànt mu sàggan wóorul wóorul ba beneen koor fekkat ko fa heure buy fayu kooru daaw gële su boobaa bis bu wooree da cay boole génne benn cula ceeb sarxe ko lii mooy la ëpp ci li borom xam-xam yi wax loolu nag mbokk julit moo tax ñuy ñaax sunu mbokk jigéen ñi loo gis rek décision la koor garawul ci xel rek la nekk moo tax da ngay gis koo xam ne fay baru koor diis ci moom lool amma bu weeru koor ñëwee mu mën a ànd ak nit ñi woor du ko sax yëg loolee sa xel la nekk waaye bul bàyyi xel xiif ba nga cee xiif yow soxna caam bàyyil xel pay ga nekk ci yàlla kontante gi muy kontante yow ci nekkat nit ñépp ngi sukk ci bool bi di añ yow nga bàyyi sab añ ngir am sa ngërëmal boroom loolu boo ko bàyyee xel rek koor ga day daal di woyof ci yow mbokk jullit yal na yàlla subhanahu wa taala wërsëgal ñu weeru koor bi di ñëw ñun ñëpp ñu fekke ko mu kàttanal ñu ñu woor ko li seen xel dem yéen ñëppit fukki fan ak ñetti moo ci des te tëj nañ suñuy jàkka mbokk loolu nekk na tiis nekk na métit waaye nag ñi ngi koy muñloo suñu boroom di ñaan yàlla ci kattanam balaa weeru koor a jeex yàlla nañu ubbil la nga xam ne suñuy jàkk ba mañ faa taxawaat nañ fa doon taxawee danaa fàttali it mbokk julit ñi daan jël seeni alal di ko yóbbu ca jàkka ya ngallaawaay coronavirus bu mu tax ñu ñu bàyyi ko de bu mu tax ñu wàññi ko de miskin yaa ngi fi ba tey tey lañ ko gën a soxla ci bi coronavirus amul woon. su ko defee ngalawaay ku nekk ña ca xam jëlal sa alal jox leen ko ñu dimbali koo ko ci weeru koor bi soo mënee gis ñu wóolu jël alal jooju teg ko seen loxo jël ko teg ko seen loxo ngir ñu mën koo dimbali koo ci weeru koor boobee di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñun ñëpp mu sellal suñu yéene dëppale ñu ak ngërëmam may ñu aafiye fi dunya wal axira mi ngi noonu mbokk julit mboolem ñi nga xam ni ñi ngi dund coono ci coronavirus yal na yàlla woyefal ko ci ñoom yal na yàlla teggee ko fuñ ko foogewul woon yal na yàlla saafara ñu feebar yal na yàlla barkeelal ña nga xam ne seen alal wàññeeku na ca yal na yàlla yërëm aji faatu ya ca nekk defal leen ñu bokk ci shuhadaa ya mbokk wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته